ñëpp a ngi jooy sa dem gi ci mi xawliya laa ilaha illa allah muhammadun arsala walilaw alaxira jeexal nga gaay baax ya yonen ba dem na yóbbaale saabaam ya Cheikh Bamba dem na yóbbaale ay doomam yóbbaale waykatam moo daa way gaayam sëriñ Moussa Ka dem na ah! Serigne Moussa Ka na kon kay kuy marsiyaati Cheikh Sidil Mokhtar nee nañu nee nañu nee nañu nee nañu amaati moo waral ma jooy araadi suuf sax jooy asamaan juróom ñaar lépp jooy nañ guddee bëccëg yi lépp ween nañ Cheikh Sidil Mokhtar jul yëpp nee nañu yàlla fana si ku mel na moom dootu ñëw ci suuf si bennoo julit yi moo doon liggéeyam Cheikh Sidil Mokhtar doon liggéeyam ndam li mu ci kenn mësu ko am Cheikh Sidi moo ne woon bëggatuma dégg murit mbaa te tiijaan di xas moroom ja mbaa di sànni aw saan Cheikh Sidi Mokhtar yaa wuutu woon Bamba mi wóotu yeneen ba moo tax nga def lislaam mu nekk sab yan ñaari soora te jumaa ja ca la ñëpp xam ne yaay waaja sëriñ bi yaay juróom-ñaar ci doomi sëriñ baara ah. nekkaat juróom-ñaar ah. ci xalifa yi doomi maam ci doomi sëriñ baara nekkaat juróom-ñaar ci xalifa yi doomi jaara juróom-ñaari at yi nga jiite suñu yoon wi ak juróom ñaari weer balay sa wéetal nga yoon wi juróom ñaari at yi nga jiite suñu wi ak juróom ñaari weer Cheikh Sidi Mokhtar wéetal nga wi Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Sidi xale sa juróom-ñaari at yi nga jiite sun yoon wi ak juróom-ñaari weer wéetal nga sun wi kenn mënta lim ah. li mu tabax si jàkka bul jéem a lim ñaata la yóbbu màkka kenn mënta lim li muy tabax si jàkka bul jéem a lim ñaata la yóbbu màkka bul lim jëfam kon way wi yàqu mbaa nga bind bind ba mujj faf làq ci ak ndawam la daa faje ay aajo boo ko xamul laajal turandoom seex awa balla dugaajo tooli daarul marnaan ba mu doone ndaw ah. tooli daarul marnaan ah. mas nañoo ñàkk ab taw seex awa balla woo ko ca baayam sëriñ baara sëriñ Baara ne ko dellu daaru ma naan li ngay doon ndaw ndaw buñ bëggee ab taw nañu la neexal kon leer mu baawaan ba mu dellu see wax ko Seex Awa ñu neexal Seex Sidi Muxtaar keroog daa taw a taw ba mujj baawaan baatinub Seex Bamba baatinub Seex Baara ak jagleeg Seex Bamba nga yore woon moo tax nga attan yan Seex Sidi Muxtaar Seex Sidil Muxtaar borom Mbàkke Kajoor borom Kër Ngalla borom tawfeex ala ku sopp sama waaja Seex Sidil Muxtaar teral na ñooñ alxuraan ak ñooñ xasaayid kuy deeti joxe junni xar ci bisu piit ah. kenn mënta limu ñu mu defal taraanga bul jéem a lim ñu mu fegal yaraanga pencum guy mind